léegi nag IFEMS dafa woote IFEMS mooy lan mooy union des femmes musulmanes du Sénégal association bi nga xam ne dafa bëgg benn la jigéen ñi pour lan ñu mën di xàccandoo di dóorandoo ci yenn activités yi nga xam ne euh, ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp ñi nga xam ne ñooy jigéeni jullit ci kaw loolu nag association bi chaque année day organiser séminaire bii moo nekk Euh, septième édition organisée organisée euh, séminaire yi thème bi développer thème des enfants en islam Nous avons ñu yaree xale yi ci Nous ñu ngi képp ki nga xam ne mooy jigéen la buñ ko réussiree daanaka dinañ réussir lu bari si suñu dund mooy li nga xam ne mooy yar léegi nag ñu gis ne war nañ ci mën a jàppalante kon book ñu ngi leen di woo képp kuy jigéenu jullit wala boog képp kuy jigéen ñu ngi lay woo nga ñëw assister séminaire boobu nga xam ne ñaari fan lay def mooy le 31 décembre 2017 ak le 1er janvier 2018 ci kaw loolu nag programme bi dina tëddee nii bu ñu xëyee daanaka 9h incha allah la ñuy ubbi la ñuy commencé woote 9 ba 10h la ñuy def suñu mise en place comme affaire jigéen la léegi nag bu ñu paree dinañ ci dugal benn programme boo xam ne mooy astuce de femme euh, surprise nag lay doon ci wàllu nga xam ne bu ñu waxee astuce de femme mooy ci wàllu joŋe ci wàllu nu jigéen di defaroo lu ci bëri daal dina ci ñëw incha allah. Moy digënté 10 h ba 11 h lén na buñ démé ci samedi bi programme bi à partir de 11 h ba 14 h table ronde lay doon table ronde bobu nak dinañ ci wo benn oustaza mu wax ci li ñi wax yar xalé ci sharia ci l'islam définition ak euh, naka le ko l'islam gissé donte ni tamit diiné lañ wax wayé gis nañ né diiné ak jamono dañu and kon dinañu woo benn médecin médecin boo xam ne dinañu wax lu jëm ci wàllu nan la lan mooy wér-gu-yaru wér-gu-yaramu xale donc la santé de l'enfant bu ñu jógee si loolu am na nutritionniste ki nga xam ne dafay wax ci wàllu euh, lekk ak naan xale bi lan la war a lekk donc table ronde boobu mooy am ci samedi bi ci suba buñ ci paree ci ngoon gi bu ñu añee ba pare ba julli def yëfu sàmbeen incha allah dinañ indiwaat beneen programme buy wax ci wàllu yar ak défi yi nga am yi ñu am ci société bi ñu nekk société sénégalaise ak nan lañ koy contourner incha allah docteur Aline Gueye moom moo ñu koy defaral. léegi nag bu ñu demee nag ba 17h incha allah dinañ tàggoo ba ci dimanche ba ñu ñëwaat defaat suñu programme mise en place astuce de femme ba 11h tàmbaliwaat programme yar xale yi. mais ci boobaa nit ñi dañuy ñëw indi problème yi ñuy jànkoonte ci kër yi pour yar seeni doom léegi nag bu ñu indee problème yi ñu discuter ci wax ci ba jël nag liste problème yi ñu am yépp bu ko defee oustaz docteur Mouhamed Ahmad loo ñëw nag indil ñu ay solution ci problème yooyu ñi am donc dimanche matin matinée bi yépp loolu moo ci am bu ñu paree daal def suñu pause def yëfu sàmbeen incha allah IFEMS ñëw nag présenté wu def bilan li ñu jot liggéey ci année bi su ko defee ñu ñaanalante ba déwoon inshallah lool dal mo aaju ci programme séminaire bi légui nak ñu ngi leen di ñaan yeen ñëpp ngeen ñëw ci heure bu ko défé ñu mëna téla commencer mëna téla paré pare euh, comme affaire yi mbirum jigen la ñu baña euh, def yeufu Sénégal nan waxtu ki heure de Sénégal téla ñëw bu ko défé ñu mëna fa téla a affaire bi nak

nang ko jëfee bul dem ci fo bul dem fu ñu koy defee àndandoo bu bon moytul ma ko dalay yàqu ba dootoo yiwee bul dem ci fo عدد أبوبا ميت المقاد لن يقبض تاتخيه